te boo demul tamit responsabilité yow lañ incombé waat rek. waaw Mor euh, waxtu waa ngi dem léegi nag euh, digg euh, démission bi nga xam ne Moussa Dieng def na ko di coach FC Baol ndax dafa laale coow li nga xam ne nii fan yii moom moo jug ci équipe bi. non non moi je pense pas parce que bon personnellement j'ai pas changé avec Moussa j'ai essayé de le joindre depuis hier. Mhm. mais waxuñu si bon peut-être ya il de résultat. Mhm. bon xool na ni tamit xëy na li ko dénk. temps mooy kooku wala yéene ji mu ci amoon moo tax li ko li mu def nii euh, je le un grand top. Mhm. parce que si le résultat ne s'en suit pas parce que ñun Sénégalais dañuy wax a l'habitude de dire que ñun ñëpp dañu koy wax Sénégal du démissionné. du démissionné. Sénégal ku dàq la mais comme il a eu ce courage de démissionner. am na ko jàpp na résultat yi baaxul. baaxul mu dem ah. attente bi ne amoon si moom bala muy bala ñu koy dàq mun a xaaral ma bon pare wu noonu pour dàq ko tamit parce que ñun tamit évalué gu leen. Mhm. mi parcours. Mhm. donc da si defar lañ toll daal xam nga tey jii fii ak mercato bi tëju yaa ngi defaraat. Mhm. ndax bon si biir mercato bi président a pu encore trouver cinq joueurs de taille yu am niveau. dolliwaat si équipe bi. ndax am na ay am nañ ay départ yu dem yu demaat si yeneen équipe yi donc ce qui veut dire il faut combler le vide et puis il faut le combler aussi avec la qualité. Mhm. Moussa Moussa def na lu ne na ci. kon nag ko dénkee bis bu set du neex léeg-léeg mu naqari bu ñu ko dénkee mu am audace bu jékki-jékki rek xam ne dañ ko doyee woon matale ko mu dem dañ ko ciy félicité bu baax a baax. waaw Moussa je le félicite et l' encourage. Mm, noonu dëgg yàlla li mu def nii jafe na Sénégal laa wax du ma wax Mbàkke mais jafe na Sénégal nit ki daal. jafe soo demee ba xool ni vraiment déw mu wala lenn nga démissionné. boo mm-hmm. démissionné xëy na nga yombal nga ko ñëpp liggéey. Mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu moom yëpp nit grand homme dëgg koy def. moom ni ngeen ma dénkoon vraiment am naa yéene mais fii laa yem daal. li ma bëggoon xëy na atteindre ma samay objectif donc yi ma fixé woon. ak yéen wala yi ma fixé woon ak ma sama bopp atteindre ma ko a accepté vraiment et on l' a ñu ñu dikk ci diggante euh, du ma wax sax ki nga xam ne moom mooy recruter joueurs yi kan la du mooy Djily Diagne. non recruter joueur c'est trop dire par exemple. Mhm. Euh, tout par exemple tey jii euh, recruter. Mhm. mën naa ko wax ni parce que ñun amuñu directeur sportif externe. Mor on a un président de commission sportive. Mor waaw. Djily waaw par exemple comme man mi nga xam ne je suis un manager général je peux recruter. Mhm. Djily recruter. mais mm-hmm. xam nga le dernier mot revient au président fi ni du dire nii. Mm-hmm. parce bi yoragul ay fonds boo xam ne yu muy gérer. kii fay wala kii xool ni mi négocier kii defe naa nit mënu koo gën a placé wu tamit. Mm-hmm. waaw même yow mi Youssou tu ak à Kédougou. aujourd'hui si tu trouves un bon joueur à Kédougou tu nous proposes ça li ñu mën mooy dox si jéego ndax dafa ne Youssou jànkat bu demee ba woo yónnee ñu joueur xam na exigence bi ñu soxla. donc on est en travail aussi am loo xam ne nee naa timing la. Hmm? comme mercato. mercato bu ñu ko déggee ñu bëri dañoo comprendre mercato mais mercato même plateforme bi nga xam ne ci dugal licence day tëj. day tëj te xam nga tey négocier euh, tey jii c'est pas le club qui négocie les salaires. wala wala entendement wala per diem wala loo ko a donc c'est le président directement qui sort de sa poche. pour négocier ça donc tey jii euh, un capitaine café peut trouver un joueur. mais lu man woo wala mu woo président ni ko nangam ak nangam. mën na woo tamit jili ni ko nangam ak nangam suñu ñëpp ñoo si doon travaillé muy jili muy man muy président muy keneen koo xam ne buñ kii ñun ñu ñu xool les entraîneurs ñooy choisir ñu soxla du man du jili mm-hmm. jili ak mën a yam on peut amener un joueur mm-hmm. comme Badiane peut am le président on peut amener un joueur mais c'est l'entraîneur qui va décider kan lay retenir ak kan moo baax si moom mm-hmm. xam nga mo ko jox ba ni ko kii dee football par force ëllëg su amul résultat loo koy wax xam nga peut être mbedd wax wax yoo xam di comprendre mais te comme dama la dama la wax ne le président c'est le président de toutes les commissions. Mhm. il peut intervenir où tu veux président amul limite jëlal tey exemple si Real Madrid rek wax ji wax ji yëpp kan mooy décider du Perez. waaw. Hmm? football moo toll foofu daal. mais Mor. waaw mën ngaa détecté. Mhm. mën ngaa wax waxtaan am na te ñun réerewul suñu biir daal comme li ma la waxoon tamit. ah ñu gars yi nag nee am na ñoo xam ne ñoo réeroo parce que diggante euh, parce que ñu bëri ñoo ngi léeg-léeg président bi day wut ay joueurs te te du wax jili wala du wax ñi ñoom ñoo ko war a yëg loolu waaye dama xam ne moom dama la non ñun réeréwun encore une fois man je viens mhm. nit ñi nag ñooy dégg ab kuwaak bëgg ko profité dafa am mooy li ma la les prévu galère mhm. da am ñoo xam ne ñuy dégg benn ko kii bëgg ko mais dama la tout timing fu mu toll nii ah mhm. ak njëkkante est-ce que am amatul sa temps temps loo am temps de kii mbooy yaa ngi noonu c'est le secrétaire général ba deux heures matin ba di dem man moom dañuy travailler ndax plateforme day tëj. Mhm. ba deux heures du matin ñu ngi travail pourtant ñu bëri ngi nelaw. Mhm. am na loo xam si bi ñun ñoo ko mën a jënd daal maanaam loo xam si mais li ma la wax nii pas le président c' pas Djily personne n'a aucun problème les dirigeants n'ont pas aucun problème mais am na ñoo xam ne dañuy bëgg utiliser loolu. Mhm. Djily a compris président a compris moi j'ai compris beaucoup de personnes ont compris ça. mais mais mais président war naa man a comprendre loolu ba tax ne ku bóot bukki xaj baw la léeg-léeg du ñàkk yu mu déglu ndax Sénégal Mbàkke Bawol moom war a rawatina Sénégal wala boog Sénégal boobu ku jiitu rek ku jiitu la ñuy wax waaye ka nekk kenn ko wax moom moo yor équipe bi moom moo yor équipe bi waroon naa man di tànqamlu yenn yi tey na kàddu yu mu yëkkati day démissionné jàpp naa ne wutoon a démissionné wutoon a wax a yëkkati yooyu kàddu. donc moom maanaam c'est son intention. da ngay defee intention tamit nit ku ne nit la parfois tamit da nga yusu. waaw football bi amoo loo ci gagné. xaalis boobu nga def si football bi am na fu mu xat ci yow. waaw. te jàpp naa ne tamit nit ñi il faut ñu positif. Hmm? parce que président tey jii bu demee bu yusu. ah xaalis neex na trop. Hmm. te sûrement ma équipe bi la fi nekkoon nii mën na ko maintien n'est-ce pas. Hmm. maintien rek. li ñu fi yor nii mën na ko maintien mais su demee ba renforcer waat si de taille tey benn benn boy bi c'est lui qui a marqué deux buts. si renfort yi tey am vient de la Gambie, il a marqué deux buts. Mhm. Il y a un joueur qui vient de la Guinée. Mhm. Tu comprends bien ce que mhm. Mais donc renfort, c'est positif. sais, titularisation deuxième Je président ñu profil Je ne sais pas mais on s'est passé en trois jours il a marqué un but moi, on moi, pas si moi, lu moi, muy man muy yow muy moi, pas si gis lu moi, moi, xam si on est dedans envoyé fond am na foo xam ni mooy li ma wax noonu dafa am loo xam ni championnat day toll foo xam ni peut-être ñi ci mbedd bi duñ comprendre dafa am timing. Mhm. par exemple plateforme le vingt la war a war ngaa renforcer équipe. Mhm. te mercato amaatul. Mhm. heure bi nga mën a renforcer. est-ce que tu comprends bien ce que je dis. comprendre naa bu baax. te pourtant renforcement boobu xaalis la. ndax nit ñi nga indi xaalis te pourtant bu doon da nga bëgg a méngee rek li fi nekkoon mën na méngee équipe bi. mais toujours à les ambitions. Mor l'homme propose président bi ndax wax ngeen ak moom mu deltuwaat ginnaaw si dogal bi wala waxagul nga. non ñi ngi ñi ngi waxtaan alhamdulilah eh, positivement je pense que on va revenir en meilleure forme ñun ñëpp ñu ngi waxtaan baax a baax. waaw te am naa si yaakaar ne aussi comme li ko wax ne ko pour un mandat de ans. Hmm? Hmm. dana dana si watan a waxtaan ndax hmm. ay mag tamit ñu ngi si waxtaan ak yooyu daal peut être dana dana trouver terrain d'entente incha rek. parce que c'est l'intérêt de tout le monde. sa sa même même joueur dugg nañ Mhm. sa kàddu gu mujj lan lan ngay wax waa Mbacke bool ngir ñu bàyyi xel ci équipe bu baax. oh non Mbacke moom boo xoolee mooy li ma la wax noonu rek équipe bi moom euh, équipe bu mbaa la du sama équipe parce man damay dégg léegi ne si bi naan équipe dañu ko tijji équipe équipe tëjuluñ ko kenn mhm. yoruñu caabeeg tijji ma bon ñun ñu yëpp par exemple ay nañ jël exemple ay nawetaan kat lañ mhm. hmm? exemple bi may jël man yàgg naa si nawetaan lool kon bi ma bokk temps yi ñun boo xool yoon na boo koy wër dem bur ko yem yaat ma wala koñ yoon yaat ma woowu yoonu ndam ne dëkku na tabla caabi yoonu ndam nekkoon na école 2 yoonu ndam nekk na sama mbedd moomu yoonu ndam nekk na suñu muur gay équipe kese yë ñu sa ëpp ñu yëngu fa lay féete mhm. ko kenn et je prends l' exemple de beaucoup de gens ñu bëgg a ñëw jàpp si équipe bi dañuy ñëw jàpp si équipe bi équipe da nga naan yow tëj équipe kan moo war caa bëgg a tëj mhm. fekkee da nga am volonté ñëw jàpp si équipe bi kenn mënu la dara mhm. mais toog sa bopp naan équipe dañu ko tëj kenn moo tëj équipe le président lu ne wax mon numéro est assemblée générale wax de ñaata nit ñu waa doomu Mbacké kuma ma woo ma jot te ba léegi noonu lay dund ku ko woo joo ko te mu rappelé ak numéro bu mën doon ñu mhm. ku mu mën di doon boo mhm. ko xamul kon tëju mhm. il est accessible il est très accessible jaajëf euh, président daa moom équipe bi mbaa Mbacké ñoo ko bokk beneen bi tamit ñun par exemple aujourd'hui j'ai entendu on qu'on parle de subvention de subvention hmm? ñun euh, subvention ñun ñoo ko moom Mbàkke leen dëkk mairie Mbàkke moo ñu ko war a jox. Mhm. c'est notre devoir. duñ joxe lu yoon la bu fekkee dem ba mairie Mbàkke amul moyen bi ñu on comprend. ndax ndax ndax ndax jot ngeen un million yi leen maire bi joxoon. non ñun jotuñu un million. ah, ah da ngeen koo gedd wala da ngeen koo jóg wala lim leen jox moom ngeen xeeb. non ñun da waaw d' abord. ñun jàpp nañ ni subvention bi. dèjà loolu tuuti na parce que un million rek mën a jouer deux matchs la mën a jouer bu bëree beneen bi tamit. Mhm. Ah, que bi ñu demandé subvention.

léegi la garaawul ñun boo ñu day jox cinq cent mille sax nga bind ko ni ñu cinq cent mille mooy seen subvention moom mhm. am leen am leen cinq cent mille am leen un million ba te bi ñuy demande subvention ñoo wax eh, ah, mhm. mhm. gën a rafet mooy nga boo ñu di jox trois wala quatre millions wala cinq millions wala wala cinq cent mille ñu ko mu leer. Euh, ndax bu boobaa ñun ab structure la ñu yor bu boobaa seet note la bu permettre structure bi ñu xam ne lii leen teg si administratif ndax bi ni jox bi tax yoon naa xaalis ndax bokkoon ngeen jël FC Baol non ñun bokkuñu si ndax équipe champion bind comme li leen exiger yéen wala hmm? équipe championnat bi leen jox ay bind comme li ngeen def binduñu <coughs> non bon loolu la ko wóor ma mais je ñoon subventionné leen ak nawetaan kay yi hmm. man malgré si nawetaan laa bokk mais man euh, subvention nawetaan euh, pour man subvention Euh, activité la ñuy subventionné duñ subventionné nit ku tëdd këram. Mm-hmm. man jàpp naa ni kuy kuy subventionné activité la activité la amul nawetaan amul donc man day day jàppoon naa ne te subventionné woo jëloon ko jox ko équipe yi football championnat. Mm-hmm. mu ëppoon njëriñ. Mm-hmm. ndax benn association def ci benn activité. te association booy subventionné pour activité yi muy def ngay subventionné. waaw loolu moom peut-être bon mairie bi xaw ma dañoo xamul xaw lan la daal mais war defe naa loolu war nañ ko saytu bu baax subvention activité bi nit ñi def association yi yooyu ngay subventionné. mais subvention nit ku tëdd këram rek. Mhm. donc tey jii loolu xajoon ci équipe championnat yëpp. Mhm. Mhm. tey même ñu ngi nii FTA ba aujourd'hui bien vrai que le football est très mais ba léegi jotuñu subvention. suñu tamit benn lettre boo xam ne wax nañu yan modalité la. waaw ah, moo tax nañu téye suñu loxo tamit ñun di xaar. kon daal équipe bi fi ñu toll nii daal foofu ngeen ci toll yéen. waaw ñun de foofu lañ toll maaw jërëjëf ñu ngi lay remercier beaucoup di saytu gi ngay saytu yëfi Mbàkke yi yëpp doo dëgg yàlla que les gens te comprennent que da ngaa nekk sa rôle journaliste rek xam man ak yow maa ngi nii dañuy jàppante mais du jàppante mu suma xas sa liggéey parce que ay position la nga wax ma wax mais tey du ma la noo yus waroo def lii wala lii parce que sa rôle dama la rôle bi nga nekk nii dañ la si war a jàppale ñun parce que li ngay leeral pour du pour yow ndax tey boo bëggoon leeral sa bopp rek mën nga maa woo seetlu nañ ko ma leeral la li ngay leeral ko pour askanu Mbàkke la vraiment je te félicite beaucoup et je t'encourage vraiment jaajëf Mor jaajëf Mor jaajëf Mor